yoonu ku tedd ki maam Cheikh Ibrahima Fall lan mooy xitma xitma de daa tax mii mii nag ca maam Cheikh Ibrahima Fall mu jëkk ma la xitma tàmbalee Baye Moudou Gaye moo ma ne ci njaari mille sama maam Serap Fall woo na leen nee ñu ñëw mu ni seen maam Ibrahima yi doom ku fi yàgg la daal ni seen maam Ibrahima mii liggéey na fa màkk jàkk joo xam ne at ba at dañ ko julli liggéey fi fi ñeerim jàkk joo xam ne at ba at dañ ko julli mooy jàkk jo dox diggante kër si Alfa ak kër si Ablaye Fall Ndar sëriñub kee seen maam Ibrahima doom ku fi yàgg la doom seen maam Ibrahima jàkk at ba at lañu koy julli liggéey fii fi njaarim jàkk joo xam ne at baat nañ ko julli ne daal di jël loxoom dóor ci morom ja ne sama loxo bi doom di génne ca kaabal màkka ga loolu dëppoog li nu alquran wax ni wa is yarfahu ibrahimu xawaida min al bayti wa ismailu rabbana taqabal minna innaka anta samil alimu ibrahima xalilullahi mooy muy abori jal mi nu àndal xalilullahi nag moo jëkk a xitma moo moo jëkk a bi borom Touba ñëwagul ba feeñal xidma ci xasida yi. amalaa fi amal. Ah? man man man amee saali fali naf si. Mm-hmm. yéen a des na amanoo wa amiloo xidma nag. Mm-hmm. wax naa la léegi ni la. Mm-hmm. ci la sëñ la Alaaji Maam Cerno waxan moo jëkk xidmal sëñ Touba. tàmbalee xidma ji ci bale ak guub ak root. te des na ca kanam. maam maam Ibrahima Xalilullaah nag lu mu jëkk xidma moo jëkk jébbaloot mm-hmm. Ibrahima Xaylulaay muy aboori jaal mm-hmm. moom la yàlla dénk diine jéet xakkadun minal uloofi mm-hmm. téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ak ak ak junni diggante ñu ñu yónni ak ñu ñu solo yàlla tugu ci diin lislaam benn yonent bu dul Ibrahima te Xaylulaay muy aboori jaal moom rek la yàlla ne jàkk ne ko isxaari lahu rabboo aslim moom rek la yàlla ne jébbalu ba ko yore nii jébbalul mu dal di jëfandikoo ndigalul muridulaay saadeex wante sal am ri xay su warat mu daal di rot ne xalaala aslamtu li rabbil alamina mhm. daal di jël boppam jébal yàlla mais na moom képp jébal yàlla boppam mhm. waaye yëmale wu ko ci da koo yaatal faawse biha ibrahimu bannihi wa yanquba yaa banniya ina la tafi lakum dina fala tamatuni illa wa antum muslimuna booba ñetti kàngam la am Ismaayila Isaaxa Yankuba ab sëtam ni yéen sama ñaari doom di Ismaayila ak Isaaxa ak Yankuba sama sët bi yàlla wàcc nañu diine njibbal kon nag wala tamutunna wa inta wa illa antum muslimuun bu leen faatu mukk te jibbul leen Ismaayila rot jibbal baayam boppam Yankuba Yankuba rot jibbal maamam boppam Isaaxa rot jibbal baayam boppam waaye menn man Ibrahima mu jibbal yàlla boppam nit ñi ci nit la ñuy jibbul ndax yàlla génn buum rek la tàllal buum nga leen cat li yàlla ci téye cat la jël Ibrahima ja téye Ibrahima mooy mooy mooy abori jàll ñëpp ci diggante bi lañ te moo tax yàlla waxtu si bi abdillahi jami an wala tafaraxu jàpp leen ci buumu yàlla gi te bu kenn bàyyi xalilullahi moomee nag moo jëkk xitma ndax li mu jëkk jëkk jëkk jëkk jiblu saa borom wa taala li mu mandargaale maam Ibrahima xalilullahi mooy yëkkati ga mu yëkkati kaaba ga yëkkatee wu ko julli yëkkatee wu ko woor yëkkatee wu ko jàng ab safoom la jël de tabax ànd ak doomam ja mooy wa is yarfaw ibrahimul xawaida min al bayti wa ismaila rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alimun moo jëkk xitma ba taa ba nga jóg ba toll nii mu toll tey macha allah ba maam Ibrahima moomee nag ba mu defee loolee saa borom yebal sang bu tedd bi ci Madinatu Munawwara te ku ku yàlla bind moo tax moo tax suñu tubaab naan zoma salaatu alal muxtaar min mudarin xayril bariyati min baakil wa mubtasim waaye nag joxu ko diine nag da koo toppaloo ba nga xamante yàlla moom la nga xamante ni moom la wàcceel boppam mooy xaqiqatul munawwara la joxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy qul yaa ahlal kitaab taalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illaa llaah wa laa nushriku bihi shay'an mm-hmm. ñuy tudd baatub yàlla bi képp ku nu nga wax laa ilaaha illallaah di bulit ku ko nungu la wax di ab yéefar mm-hmm. dundale ci sa alal maa nga sa alal jox ngir yàlla gëm ci xëy bu àll si ne yoomi noonu bil xëy bu waaye loola diis nag mooy aqiqa rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ñaan yàlla yoonu jotu ba bis sa borom yebal al buraax ak Seydina Jibril ne ko na wër ci fas wii nga indil mu ko ma jox ko yoon wi mooy ñaan yoonoo mooy shariatu mu taxara mm-hmm. lii moom la yàlla taamul bopp muy aqiqatu munawara bii maam si Ibra Faati doxee shariatu mu taxara bii ba ñaan yàlla may dihi sunu borom ak pays yi si deretul muntahaale si ila jibril yam mhm. fala alburax muy ak déem goo xam te ni mooy yemuwaay mooy almunta ci luxatu arabe fii mbiri yemuwaay ba ne sëy naa jibril ni rasulullah yi ni xuusal loo gis sa borooma ba mu ba mu xuusee la ko yàlla artu wax moom ni ko fi ma nekk ku amul kilifa doo fi ñëw da ngay jibul doogu mën a ñëw alxuraan la li mën a ahsana diinan mi man a aslama wajhu lillahi fa huwa muhsinun rasulullahi teg mu joxoñ ko ne ko kon wa tabi aminati ibrahima anifan ngir ibrahima rek la ko yebal watabi wa tabi aminati ibrahima anifan wa taxisa laahu ibrahima xaalilan ne ko ibrahima de moom ko ba ma ko ni is xaali lowoo wa aslim ni xaali aslamtu rabbil alamina xalilullahi moom muy abori jàll kooku mu jëkk a xitma yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw ci maam Ibrahima jébbal ko boppam ginnaaw bu mu jébbaloo la doog a am suma danna fa tadalla fa kaana xaaba xaw sayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha dangaa def entre parenthèse ci laaj boobu waaye si Ablaye si Ablaye Lam dafa am lu mu jublu loola mooy xitma nag maam ibrahima xalilulaay moo jëkk xitma mu ci yëkkati gi mu yëkkati kaaba gi maam ibrahima abou rijal moo jëkk xitmaal borom tuuba xaadimu rasul ci laa jëm si ablaay laam nga ne lan euh, waaw euh, ma jottali la nuyoo sëriñ fàllilu Souhaïbou waaw euh, Mbaye sëñ bi nee na mu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax di la ziar sëñ fàllilu Mbàkke Souhaïbou mhm. ak soxna mam Bousso moom mhm. sëriñ Abdoul Ahad di doom ci soxna Rama Mbaye Euh, nee na ñu ngi ànd ak ñun sama goro Manuyu Diagne ak soxnaam sama doom astu Diagne ca Njaareem ñoom it ñu ngi àndandoo ak ñun ak euh, euh, soxna Astou moom Serigne Mourtada Mbacke mu ah, Cheikhul Khadim waaw ah, nee na mu ngi lay nee na mu ngi lay ziar bu baax a baax ñu dellu siwaat ci Babul Mouridina mhm. sëñ Moustapha Fall ñu ñëw nag ci sancub Daaru Salaam waaw sancub Daaru Salaam danga koy boole nag waaw ak euh, damuk euh, euh, maam Cheikh Ibra Ndar. Hmm. ma boole demam Ndar. waaw sànni nga lëgg ca lay ba. waaw. <laughs> maam Cheikh Ibrahima Fall. nee naa la. bi mu àndee ku bi muy ànd ak moom ku baax kër kër yi wajur ak kër yi maamam la doon dëkk ànd naag moom itam ñetti at te xitma bi kii da ndos te bi mu ñëwee ci guddi gi la tàmbalee xitma booli bu ak root ak taxan loola nag ca la nekkalan borom Tuubaa bi ñëwee Mbàkke Bawol itam ca la nekkalan moom di takki di fetañ di taxan di root di buub ba ñetti at yooyu jeexee muy aama assasin nag ba aama dasasin ci ijiriya ñetti at la ànd ak borom Touba te daari tër bi susuut yàlla dogal nag muy dem àllu Daaru booba àll bu tuddugul Daaru Salaam mu ngi tudd àllu Mbaasaar Daaru Salaam ba Touba booba ku baax ki lu mu taxaw ci ak njaboot day daal di wàccub liggéey booba mille neuf cent fàtte képp la borom Touba taxawal Cheikh Mouhamadou Kabir ak ña ca topp ñëpp ku ñëw rek da nga delluwaat ci sa borom saanam ci Ibrahima Fall dem suufu Daaru Salaam dafa dafa liggéeyal seen di gor jalambaan ni ko baax ke daan taaloo di ca tàngal café di ca tàngal warga di taal di bind soo sa waxee maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko man day suuf laa soo xam ne ku nekk ci sama kaw loo jur mu toog saanam ci Ibrahima Fall ñëw ca borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ne ko naa suuf soo xam ne wax naa man ne na ma man day suuf laa ku nekk ci sama ci sama kaw lu mu ko ma tibbal ma ci eh. saaman ci Ibrahima Fall daal di delluwaat Daaru Salaam te saasa tibb jël suuf si indi borom Tuubaa Xaadimu Rasuul wax nga dëgg de boo demee nanga ma fa goral te takkal ma fam néeg maam si Ibrahima Sall Babul Muridiina jóge Mbàkke Bawol xëy dem Daaru di gor yendoo gor ba jant bi so menn moom fanaanee gor ba asamaan set menn moom xëy di gor ba yoor yoor yoor yooru góor muy onze heures demi lii nag firnde mooy del dama koy waxtaan yi may groupe kër sëñ am di Mbàkke boobu sëñ ensaale mu àlla ji sëriñ tàkk ko kër sëñ am di Mbàkke lay màggale boobu këram gi ci raay bi sëñcagu ko sëñ Amadou Moutar Diop ma jigéen ba ca ndabatat ga ca pir mag ñëpp toog askanu Mbàkke teeg mu taalal ma loxo ni ma Moustapha man ko saal mun ma sëñ gaawaan la murit sëñ gaawaan moo ma yar moom laa liggéeyal ba mu rëm ma wàcc sëñ gaawaan moo ma ni ni sëñ gaawaan moo ma ni keroog bi Cheikh Fall xëyee mbàkke ñu alu der sande gor yendu ba asa ba jant gor ba asamaan set góor ni sëñ gaawaan moo ma ni borom Tuubaa dafa jël nëbub gerte nëb ko ci loxoom jël as ñàkk def ca ndox yan ma ko sëñ Amadou mu ma jigéen neen sëñ man ne ko mosa nu ko bàkk saal si fa ko borom Touba waaxo ci bi jox ko ni ko digal ko ni ko sëñ Amadou mu tay ma jigéen neen sëñ gaawaan ni na si yàlla fal yi ngëbu gerte boobee nee ma tuma ni ma jox ndox mi nee ne si yàlla fal téye ndox mi di lim digal laa taqtuloo say bi xëyri ismi ñëpp ko baax ki ni ko naan ko sëñ Amadou mu tànn sëñ gaawaane bis naa naaneen naan ñàkk sa ba mu jeg tag ñàkk wi tàmbalee wàcc nee may witti ñàkk wi da ko wicceeg sëñ gaawaan di ñàkk ñetti wax wi di ko sëñ gaawaan ba yàgg nee sëñ tànn sëñ gaawaan ni ne ne seera Fall tes dar ma ci boppam di ma bomb ñàkk wi loolu mooy bërëb Daaru Salaam ko baax ki ne ko ma fi nekk mooy néeg boobu bi ngay dégg kon na nga xam ni dama la ne di nga dégg man ñu ne ñett at la maam Cheikh Ibrahima Sall liggéey Sëriñ Tuubaa te ànd nañu juróom benni at ñetti at yu jëkk ya booba daari tarbiya moo taxawagut diggante Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawol ama assasin ba ama desasin loolu daaru tarbiya toujours loolu ab ànd la daaru tarbiya nag saaman si nga sosé daaru salaam ama desasin boobu asasin te yu ko tarbiya ak ñetti at yu jëkk ñu ànd dañ koy xàmmee mhm. ba loolu amee saaman si fall takk niig boobee waaye ku baax ki tuxoogut saaman si Ibrahima Fall ku baax ki ñëw nu yónnee Mbàkke Bawol di wut ndimmal ñu ko jàppale ci tegum néeg bokk ya gàntu booba borom Tuubaa ñi mu àndal takkoog moom moo njobatub sëriñ mu mën ko sëñ Bay waxee léegi kamaam moor moom kilifaam la ci wet ndax magama te ñi ci def bi nga xamante ni borom Tuubaa Xaadimu Rasuul saamam si Ibrahima Fall mi ngi jébbalu ci moom borom waa ci jënd ba fanweeri at la sama maam ma ñaar faal am juróom-ñaar te moom ak rek seen tubaay kon soo déggee ñu ni borom Tuubaa bi ci maanaam fa jébbalu fekk dafa ñeent fukk ñu maan ci benn ah kay ëpp na ko ëpp na ko waaye ana nu mu leen fa fekke dafa fekk daal sëñ mooman ànd sa di doog dem yor ay daara daara yu jàngale alquran ñi tawhid ñi tasuuf luqatu arabiya daara ji ku ci nekk am sëriñ daara te daara ji tësagut waaye maam ci Ibrahima Fall bi mu ànd ak Seydina Jibril ni ma wax ci njëlbéen bi Seydina Jibril jàngal ko ak taalibe la borom wax ne nag gan gi ñu fi indi ku mën a ànd mun ci lii toogal booy jàng dangay jàng waaye duñ ci boole àq xa bii ku mënta ànd nun ci léen bu gunte fooy jàng ji njàngum kese tësul daara ja wa waaye na yii la dogal ndax yàlla nee na ma jaar ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuma nga yar rek ci xam-xam te booliwu ci yitte te moo di bi mooy xidma rabbi asabaki bi himmati wala tu wala tu bi darse fakkat ne déedéet bala yar ci xam-xam na boole yar ak jàngale mooy enseignement ak éducation dëgg taamam si Ibrahima Fall mm. loolee mu fa indi nag mbooloo ma mu fa fekkan nam nangoo fekk si maam Cheikh Ibrahima Fall te la mu fa indi ñooña ñooña ñooy ñeen fukk yu manqué benn waaye nag seen jëmm ya la fa maam Cheikh Ibrahima Fall fekk waaye nag taali gii nuy doxe nag Cheikh Rafal ko fi indi ñooñu wëlbati ko ànd càmm mu mm. mm. ba fa fekk ñeen fukk yu benn ca Mbàkke Kajoor borom Tuuba ñoom Mbàkke Bawol def fañ la at ba atam ñetteelu dañu yokku lan moo tax bi borom Tuuba takki takkuloo am néeg salaam amul ñu ko teg ana ñeen fukk yi anañu anañu nañu nañu nañu daaree tëri ba yi moo sosuwut booba ñu ngi jébbulu waaye dañu jébbulu ñu dem seen kër daaree tëri ba yi mooy takkoo te booba daaree tëri ba siyaar fa sosu ko mu sos ko Daaru Salaam néeg boobee maam Cheikh Fall la ko teg tegewu ko baatin de ñu sëñ Mbaye Guèye wax léegi ci maam Cheikh noonu la doon doxee de ñu jëfandikoo baatin ngir sukkandikoo ko jàll ci lislaam ndax lislaam moom lépp baatin la yonent yépp it baatin lañ waaye ba loolu amee saa maam Cheikh Fall moo technique ba ci technique ak pas-pas ak kattan ak jom moo ko ni mbàkke li nga bëgg a taxawal ku ko bëgg a taxawal néegum ñax rek mënu la waru la te saa si Ibrahima Fall mooy fa néeg ba ne moo ko rëdd ba mu yegg mm-hmm. mu jël ngas ka mm-hmm. koñ bu ne mu gas ba dugg ci biir moom ba koñ yi yegg ndiggutu yi mu gas ba dugg ci biir ba ndiggutu yi yegg mu jël jën yi dugg ci biir nga xam ne jën bu ci ni yulub genn wàllu meetar mooy des ci mooy des ci biti ci ci biti saa maam si Fall ces bi kon teg ci jën bi genn góor suul